Ah, ñetti wax laa bëgg a ah, bu jëkk bi mooy Jëlima wax na ko nee na les femmes en politique tudd na fi politique li ngay dégg ñuy wax politique dafa salte du ma dugg ci politique politique baaxul dañuy woor dañuy fen dañuy sos dañuy kàcc loolu yëpp di nga koy dégg ñu di ko wax bi sallallahu alayhi def na politique Seydina Omar def na politique politique mooy loo xam ne lu ñëpp bokk suñu ëllëg nga ne danga koy toppatoo man jàpp naa ne sax nattu yàlla la ndax soo si duggee wax nga fàttaliku lu maam Abdou di wax mooy na ngeen jiital yàlla fàtte seen bopp jiital réew mi fàtte seen bopp politique mënoo ci dugg te amuloo patriotisme huubul wataan min al iman loolu yonent si salaahu salaam wax général de Gaulle moo bind su bindule tamit ñoom ñoom Foccart ñoom ñoo ko wax nee na moi je comprends pas pourquoi les chefs d'État africains n'aiment pas l'Afrique n'aiment pas leur pays dama ne Afrique wër naa bi man ragaluma wax ak Macron aw ma complexe boobu ragaluma wax ak Xi de Chine Erdogan de Turquie mën naa wax ak ñoom dans les yeux défendre les intérêts du Sénégal et de l'Afrique te def naa ko du benn du ñaar dama ne politique affaire u kilifa la kilif taxawaayu kilifteef la laaj yëfu caaxaan yi yoo leen di dégg ci rajo ak télévision yi bu leen ko déglu politique du wax sur la vie privée des gens c'est pas ça la politique politique dafa laaj xam-xam dafa laaj expérience ñu ngi waaj a dugg ci pétrole kon politique dafa laaj bëgg sa réew patriotisme dafa laaj gis-gis dafa laaj gis-gis bu yaatu fan la ñu senegal Sénégal ñëpp jaaxle nañu soo dem këru diine yi jigéen yéeg ñëpp jaaxle nañu évidemment xale yi amuñu xëy amuñu liggéey ñu ngi taxawaalu ñëpp jaaxle tubaab yi ne nous sommes à la croisée des chemins évidemment nous sommes à la croisée des chemins. Mais aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, ce dont le Sénégal a besoin, c'est un président de la République comme Mamadou Lamine Diallo. parce que nag parce que nañu warante dëgg nañu warante dëgg gaa ñi kenn bi ñu ci téere amuñu jot boobu gaa ñi tukkiw ñu am ñu sa ñu demul Gambie ku demul Gambie ku xamul Gambie xamul Guinée Bissau ku xamul Guinée ku xamul Mali ku xamul Mauritanie xamul Cap Vert mënoo yore Sénégal mënoo yore Sénégal parce que le Sénégal et l'Afrique sont à la croisée des chemins depuis 2008 je vous répète l'Afrique est l'enjeu du monde secrétaire d'État américain ñëw na fi il y a un mois nee na c'est l'Afrique qui va dessiner la trajectoire économique du monde soo xamulee mooy lan soo ko gëstuulee fan nga jëmee Sénégal danga koy yàq dama ne jigéen ñi yéene yone suñuy valeur jikko yu baax ñuy tàggee yonent bi sallallahu ñu ngi fii ci Sénégal bëgg sa réew fonk say waajur man ku fonkul yaayam fonk ma la faalewul yaayam faalewuma la ndax sama baay bu mu génnee àddina sama 18 ans yi matuloon naa ngi doon jàng lycée bi de Grand ah sama yaay moo ma jàppale moo ma teg ci diine moo ma bëggal mbokk moo ma xamal ay mbokkam bëggal réew mi xamal ma ko ne ma nag maa ngi lay wax ñaari yëf moom baayam Demba Dia muy suñu maam dafa amoon xel lool foofu tu séeju tubaab yi di ko jàngal tubaab bi bëgg ko jël yépp ko France mu jàngi maamam Kumba Ba muy jigéenu Mamba Diakhouba moo ne dee loolu am ñettee major bi jàngi France sama yaay ne ma lañ doon bañ ci loolu mooy ngeen dem France jàngi fa tuub bañ a nekk ay sénégalais bañ a nekk ay jullit nekk leneen lu dul sénégalais comme sa baay dafa bëggoon ngeen jàng dafa bëggoon xam-xam bu nekk ci tubaab yi ñoom général Faidherbe ñoom colonel Pinet Laparade ñu ñuy tuddee fooru Sédhiou Pinet Laparade ñoom ñoom ñoo gañe xeex bi contre suñu maa ñi fii ci Sénégal général Faidherbe colonel Pinet Laparade ñoom ñëpp école polytechnique de Paris lañu mu ne sa bàyyi dafa bëggoon nga dem jàngi foofu maa ngi lay ñaanal nga dem jàngi foofu yaayam ñaanam nag nangu na ndax jàng naa jóge école polytechnique de Paris jóge fa nekk ingénieur des mines commencé di liggéey ci nii ñi ma jóge fa nekk docteur en économie di bind samay téere di wër àddina bi di jàngale ba tey ku mel ni Amadou Dieng mën na dem département d'état xool américain yi ci bët wax leen leen loo xam ne mosuñu koo dégg loolu la yàlla dogal te foog sénégalais yi xam ko foog ñu nangu ko kon nag Jilima wax ji ju gudd xam ngeen ne dañoo war a jubli ci parrainage yi ku ci ne jigéen bu nekk su àndee sans parrainage sans carte d'identité suñu affaire yi baax match bi tas comme Serigne Mbaye ñu koy waxee fas yaa fas naa yéene li ma leen onze mesures pour les femmes tey nag ñaari mesure lay wax bu njëkk bi couple góor ak jigéen laa wax de waxuma LGBT góor ak jigéen couple bu am deux ans ñun suñu de la république danañ la jox suuf fii ci Sénégal suuf ci Sénégal danañ la ko jox parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk mën nañ la daggal suuf Matam mën nañ la daggal suuf Kanel mën nañ la daggal suuf Sédhiou Ngindi Saint-Louis loolu mën nañ ko loolu nañuy wax jigéen ñi ñu xam ko ñu wax ko xale yi góor yi ñu xam ko comme ça suñu dugg ci àddina si dans la vie économique ñu benn am benn actif loolu la leen wax parce que nag suuf si duñ ko bàyyee la famille Faye Sall di ko fasar pasaree di def lu leen neex loolu dafa war a dakk te nit nañu ko dakk ñaareelu mesure bi bu ma fi annoncé tey foo dem ci Sénégal jigéen ñi financement nañu jooy ñu leen di

2024, c'est restaurer les valeurs, les valeurs cardinales du Sénégal, les valeurs de patriotisme, les valeurs de respect de la femme. Il faut réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, notamment l'Assemblée nationale. Sénégalais xeeb nañu seen Assemblée nationale xeeb nañu député yi te loolu dafa war a dakk suñu justice bi war nañ ko dëgë dañ dëgëral dañ ko war a taxawal suñu administration bi war fi nekk di xoxatal Sénégalais yi l'administration doit être au service du peuple au service des citoyens bu mujj bi nag bu mujj bi moom la Jelima wax nous devons nous engager vers l'industrialisation parce que industrialisation mooy tax xale yi mën a am xëy seen yaay yi seen xel dal seen bàyyi retraité yi seen xel dal loolu mën na fi nekk mën nañ ko am nañu pétrole am nañu gaz am nañu compétence technique bi lu des moom mooy pas-pas bi lu des moom mooy gis-gis bi mi ngi ci biir tekki mi ngi ci biir CRD mi ngi ci biir force vive de la nation mi ngi ci biir diaspora bi loolu laa leen di wax di leen gërëm di leen santi